parce que da ngay dem ba ci digg bi événement am nga bëgg ko ci dugal nga dem ba ci digg leneen am nga bëgg ci dugal et ça règle pas le problème beneen bi ci topp mooy da ngay gis ñoo xamante ne dañuy bind seen ay sponsor ñoo leen di orienter vers ce qu'ils veulent finalement ana création et ñun artistes yi dañuy nangu quoi loolu ñu teg suñu bopp rek ñun daal ay ndey ji seex lañ quoi lu ñëw rek ñu jël teg suñu bopp je trouve que c'est pas normal c'est ce qui est grave mooy li ñuy waxee bu mul bañee la mbay nangu justement Ibrahima Mbaye soppe danaa man professionnel du ma joué lii ñu dem jox ko benn day pétaaw nga xam ne télé rek la bëgg a génn mu leen amul problème bu leen ma fay may naa leen ko. waaw mais loolu moo fi bari loo bañ après keneen mi ngi koy nangu parce que tamit euh, wax naa la sànq télévision moo nekk média boo xamante ni dafa doy waar te ñu baree baree baree baree baree kaay génn télé mu leen gënal kaay lekk. non non dafa non non nañu wax billaay walaay am na kaay gën télé moo leen barke rasulilaay balaa nga koy xam nga dem ci casting yi gars yi di organiser. seen classe gi. suba teel la ñuy ñëw dañuy convoqué gars yi midi. 7 mooy 10. la ñuy ñëw foofu te tat seen yaay yi bu leen baleeloo. barke rasulilaay 10 heures sax du tax ñu yeewu. mais 7 mooy 10 la ñëw di xaar casting yi. ñu si mën naa nekk tamit dafa bari télévision moo influencé nit ñi léegi parce que tamit dafa am benn affaire boo xamante ni télévision moo koy moo koy réglé léegi xam nga ñi nga xamante ni muy góor ñi muy jigéen ñi li leen intéressé c'est la télévision parce que déjà booy gën télé sax da ngay gis gars yi commencé ah diw la diw la <coughs> nga commencé am benn statut boo xamante ni dafa uute ak bi nga yoroon donc télévision moo am doole boobu y a une force extraordinaire léegi nag ku nekk da nga ko bëgg a xëccoo ak sa morom ñenn ñi foog nañ ñi limite télé c'est un rêve d'enfant pour d'autres Nous, c'est pour la qualité nous, c'est pour y ay pour y ay mais 80% télé intéressé Pour être profite aussi nous, avons deux ngi deux ngi deux etc. etc. Nous ñu mën ci régler ces affaires à gauche à droite mais c'est un véritable problème